yëkkati woon nga ndaanaan ci may weekend dafa mel ni. <laughs> waaw loolu gën a wóor. kii ah barki alxuraan. wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg. man kii laa bëgg kii dëgg la dëgg dëgg la léegi léegi euh, nañu dem. Euh, ah, nañu dem man ma jox leen man li <laughs> ma yor man li ma yor mi ngi ci live ba toog. <laughs> man ca live ba ba pare. ayca yow loo indi tey ah aw gay mii. aw gay beew nga de. dina mel ni moo wàccee suñu koñ. maire di ma nuyu ma naan leen waaw yaay na ngeen def sa waa mel ni ku xàmmeetul maire yi eh. benn maire ci ñoom woo ma ne ma abaa kaay baal ma ma ñëw sa yaay bi ngay xale amee woon na ma douze mille <laughs> waaw ma ne ko oh, yaay yow dem maire Ndioba mu ne ah dama yaakaar ni xàmmeetoo kan ma yaakaar naa la maire Ndioba <laughs> hmm? ah ah maa ngi lay xoolal de man de maa ngi ah, ah dugg nañ dugg nañ dugg nañ dugg nañ dugg nañ dugg nañ. léegi da ngay gole de sax man wala da ngay dellu fa nga jógee. moom laay xalaat mais dugg nañ dugg nañ dugg nañ dugg nañ fu ñu jëm. ci kii wala ci fan lañ jëm. ji fii jaafa jëf. non non booy dee na nga gore booy dund na nga gore. ah man jëf bi xool fii la ma jox de. di di en vent. on y va on y va. <laughs> kon Aba tey si réseaux sociaux yi j'ai juste quatre points yoo xamante ne. bëgg naa ñu waxtaanee ko point bu njëkk bi nag mooy Marodi Marodi nous revient avec euh, benn euh, sketch bu neex bu ndiru lu neex parce que gis nañ bande annonce mi ngi tudd Arrêt Mère euh, Mère Thiaba donc ñu ràññee si nag ay ay kanam yoo xamante ni kenn gi dafa tàmm ci réseaux sociaux yi la nga tàmm muy maam Balla Mbow donc c'est c'est mu nekk expérience bu bees pour moom sûrement toch miin nañ miin nañ ko am na yeneen comédien yoo xam ne na xam naa Balla moom dinañ bàyyi moom bu demee ba seetaan moom it mu développé si ñooñu mm. donc euh, ñu koy xaar avec impatience Marodi saa yu ñëwee defe naa ni mu gën a neex donc boobu ba tey ñu ngi toog di lu ñu seetaan bu weesoo Mœurs amatuñu leneen lu ñu seetaan instant yi ci télé yi donc dañuy xaarandi rek Marodi ñu boole koog Mœurs di waaw yow ñu ngi lay seetaan yow ci kër nga bokk de. série casting mi bëri na gis naa xale yi ni ñu koy indi bi di di lépp waxtaan la. te da ngay faral di gis ñu waxtaan ci biti. Hmm. arrangé ko préparé ko ñoo joué ko. ñun lu ñuy waxtaanee. Hmm. la ñuy réewoo ñoo la ñu war a joué yëpp dañ koy waxtaanee ci biir série bi. casting la ñuy def ñëppay casting. ñëpp salon de coiffure yi. ñii togg. ñëpp ñii fecc. ñëpp simb gaynde. ñëpp ñii way. Hmm. mannequin yi. ñii tëgg ñi ñi lekkkat yi ñëpp la ñuy casting. ñëpp lekkkat ñëpp la am na kat yoo xam ne bu ñu dañuy casting ñii lekk. gis lu mel ni 1000 pour cent humour. Hmm. non jot naa ci seetaan moom. nit dina ree bu wé. mos nga ci gis casting ñuy nettoyé oto yi. non gis naa caamaas. am na caamaas am na ba am casting ku dàq am na ba am casting ku koo ki gën a mën Euh, yooyu da ngeen koy casting gën a mën dañ koy gën a mën. ku yor casting bi loolu <laughs> ah lom xam ah, naa lom génn ci. ah lom waay lom looy xamar gi. mais Mame Balla Mbow boobu mi ngi ci infidèle saison 2 bi. ah mooy garage Baye Gaynde ah, Baye Gaynde bi ngay dégg Mame Balla Mbow mu nekk tiktokeur bu bu am doole ah, moom aussi mi ngi dugg ci série yi ñu koy encouragé aussi ah Mame Balla ah. a moom nañ ko depuis je pense un moment gisuñu mu génne dara ci biir hmm. corona bi gisuñu mu génne mais mi ngi ñëw ak lu tudd mu yaay allo hmm. allo ma nii di waxal waxal waxal maa ngi bëgg a wax de waaye yaa ngi wax waxal waxal yow naa dégg waxal rek Edmond <laughs> Edmond mi ngi waaj a génn je pense de euh, le 28 c'est demain benn single bu tudd Wuyaay clip bi suba lay génn incha allah donc on va attendre xam naa moom tam du ñàkk dinañ ko am euh, samedi prochain peut-être dans Weekend Start mm. war na mën a nekk mais nag buzz bi li ki def buzz ci réseaux sociaux yi fa ni ñëpp di ko waxtaanee foog yow nga seeti ko. kan la Boubacar Seras. xaw ma ndax dégg man xaw ma ko mais tout le monde parle de Boubacar Seras Boubacar Seras Boubacar Seras mooy fi ñuy ndekkee ca Seras. moo nekk nii kii la waaw. mais apparemment moom mooy staru biir Seras on va dire. Oh. waaw donc Boubacar Seras la tudd xaw ma nag li muy jaay exactement lan nag lan la. mais nit yi instant yi ñëpp a ngi naan Boubacar Seras. Ah, man dinaa dem mm. xool la yër la. waaw xam ne yow gi ngay lekk mi ngi tàmbalee jeex balaa ngay pare. Ah. sa la. Eh, eh. Eh, dem seeti la yaa ñuy de. Boubacar mënul lu raw lii. wala Boubacar di ñëw. Ah, vraiment indi li mën wan ñu ko ñu xool fii ci plateau samedi bi di ñëw Boubacar Seras bu dee yaa ngi ñuy dégg du ñàkk yaa ñuy dégg <laughs> dañuy jox nopp boo ñu déggul it am na ku ñuy dégg ku la xam nga yokk tax ñu naan weekend ndékki Aïcha Aïcha Boubacar Seras kon nag kooku la donc ak benn ma choisir muy nekk France moom tamit di def li nga xam ne américains yu bëri dañ koy def ci seen ay page Instagram mooy nekk koo xamante ne tu coach boo xamante sa lépp en ligne nga koy defee tu fais des vidéos elle utilise sa propre fille di def ay exercices yoo xamante dafay permettre ba bàyyeel je pense dañuy am peut-être problème mu liggéey bi temps loolu mais ku ci am euh, tuuti motivation rek je pense que boo toppee ci moom mi muy débo di nga gis euh, loo xamante ne dina doon changement ci seen page bi waaw Pape Samba am na ko yónnee woon naa ko ko naan ñu page bi enquête mu ñu koy wan léegi mu wanaan ñu page bi ñu xool euh, mais nga wan ñu ci kaw rek wan ñu ci kaw no page bi page bi nga xam ni moom euh, ñi bëgg a ci moom waaw ñi bëgg a abonné ci dem ci moom donc am na solo xale par yenn saa nga gis leen ñu def ay démonstration yu am solo waaw dafa am solo parce que moom depuis bi mu wasinee mi ngi ñuy wan donc elle nous a montré son son corps avant ak son corps après donc euh, wan nañu ay ay façon régime ay façon euh, rythme de vie ak ni ak nu ñu koy waxatee régime alimentaire boo xam ne boo ko toppee ak exercice yi lay jox tu auras un ni ko ñëpp bëggee dafa naa ñun ñëpp on a di ko